حافظوا على سيام سيدي أغلق باب للإيام إلهي سريعا ردني بالمنى معا وكن لي دواما بالبسارات ورفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant sëriñ Tuubaa xaadimu rasul di ñaana ñaanal sëriñ Muhammadul Muntaxa Mbàkke sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak jàmm salaam ak wér ak mboolem njaboot sëriñ Tuubaa gépp ak mboolem cheikh sëriñ Tuubaa yëpp ngi fii ci jumaay sëriñ Tuubaa xaadimu rasul ji fa fas yéene jotle ay kàddu yu jëm si ci liggéeyu Moukhaddamatoul ma waaye nag ñu ngi ànd ak sëriñ Abdou Aziz Mbàkke doon sëtu sëñ Baara Mbàkke ñi ngi ànd ak sëriñ Jili Njaay doon jàngat xasida doom ci ñun ñu ngi ànd ak sëriñ Njaga Ñang mooy itam mi ngi bokk ci daayira Bamako bi ca Mali kàddu yi nag li mooy bëgg ñu gën a góorgóorlu ci liggéeyu mu xadimatu xidma ndax sëriñ Tuubaa li wax ci jumaa ji rëy na lool ba ma bëgg ñun mbokki taalibe yi nekk ci Côte d'Ivoire ak ci Mali ak Cameroun ak Congo Brazzaville ak Gabon ñun ñëpp ñu gën a góorlu am positif ci liggéey bi liggéey bi nag sunu borom tabaaraka wa taala mi ngi koy jaarale ci Serigne Saliou si mi ñu xikmatul mu ak sëñ falu Sarr bi Italie jaar sëñ Assane Diop agsi ci ñun bi mu agsi ci ñun nag yàlla dogal na ci Bamako ma waxtaan ci ku ñox sëñ Mame Balla Guèye euh, bëgg ko jox liggéey bi mu rafetlu ko lool mu yor ko yarun am solo ànd ceeg sëñ Mame Gour ja waaye ñoo ñooy siyaare sëñ maam Balla Mbacke ma fay jëwriñu sëriñ Touba ak soxna maam Fatim Mbacke soxnaam waaye sëñ Baye Diagne ñu ne sëriñ Mor Diagne mi jëwriñ Daaru Musi moo njëkk dagg carte ci liggéey bi ne fas yéene na ko ànd ak ñun kon nag Baye Diagne fu liggéey bi àgg ca Bamako moom kenn jiitu ko ci waaye ñu ngi siyaare sëñ Makhtar Faye may jëwriñi kër sëñ tubaa gi ak mbooleem jëwriñi ne ko yëpp léegi bi nag liñ ci bëgg mooy ñu gën cee góorgóorlu dëgg la naam góorgóorlu nañ wax dëgg yàlla ba mu agsi fii ñu agsi waaye nañ gën a góorgóor ndax aw faskat bu yee daw soo ko ba kaw di ko dóor woo waxut daw daa bëgg mu gën a daw ndax sëriñ Tuubaa mi ñu liggéeyal ñi mut boor daa am ak pay te li mu wax ci jumaa ji rëy na lool lool lool macha allah kon nag ginnaaw yàlla dogal na liggéey bi agsi na ci ñun ñu gën cee góorgóorlu waa Bamako gépp ñu ngi leen ci tàllal loxo mbooleem daayira yi fi nekk yëpp yëpp ci Bamako ak mbokk jullit yi fa nekk yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen tàlloo ci liggéey bi ndaxte euh, liggéey bi ni ñu ko doxalee yomb na loolu ñëpp mën nañ ko ndax carte barkeelu boo xam si ni ne ñaar téeméer rek la yomb na lool lool lool nga jënd carte membre junni loolu yomb na ndax bu sët kenn ku ne da nga fere loo xam si ne ah xëy na fa nga ko dugal dugal ko jumaa ji moo ëpp njariñ ci yow ndaxte ab liggéey la boo xam si ni ne da mel ne da ngay liggéey def sa compte rek sunu borom tabaaraka wa taala dana la ko fay ndaxte sunu borom wax ci alxuraan ne képp ku wa loolu lépp lu waay def ci yiw doonte la gën a tuuti la sax daa la ko fay kon nag ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi waaye bu ñu jógee fa Mali dañu jàll Côte d'Ivoire ci Alaaji Magumba Caam ma fa jëwriñ Sëriñ Tuubaa ñoo ngi koy siyaare ba ak Moustapha Fall may jëwriñ Xidmatul Xadim ak euh, sëñ Aliou Thiam ak mboolem jëwriñ yëpp ak sëñ Baara Fall may jëwriñ Adjamé ñi ngi leen tàlloo ci liggéey bi ñi ngi ci wan waaye ñi ngi leen ci gën a tàll loxo ndaxte sa sëñ Sadex Kan mi nekk Touba Treichville jàmbaar la ci lool macha allah waaye ñu ngi koy gën a soñ ci liggéey ak sëriñ Bara Fall mi nekk jeme sëñ Moustapha mbay mi nga xam nii ne jël na engagement euh, sëñ Fallou mbay fas yéene yor liggéey bi ndaxte am na ku ñu ko fa joxoon waaye xëy na ay yitteem ak ñàkk jotam moo tax xëy na mënu ko doxal nañ ko bëggee woon waaye waxtaan nañ ci sëñ Fallou mbay ba nangu na ni allah bu delloo ko di waat dana ci liggéey liggéey bu mag koy ñu ngi ko ci taal loxo waaye ñu ngi siyaare sëñ Touba bi nekk Yamoussoukro wax dëgg yàlla jàmbaar la ci liggéey bi lool lool tubaaloo ak sëñ euh, euh, sëriñ Mbay mi nekk Gañwa ak mboolem ñi nekk Côte yëpp waaye ñu ngi siyaare waa Gabon yi ku mel ne Moussa Dramé mañ tawoon liggéey bi ci loxoom ak sëñ Cheikh Mbeng ñoom ñu ngi leen di gën a soññ ci liggéey sëñ Tuubaa bi ci liggéey jumaa ji ñu gën ci cee góorgóorlu ndaxte kor jal na waaye màggal gaa ngi jub si waaw màggal gaa ngi jub si Congo Brazzaville euh, sëñ Moustapha Fall mañ ko tegoon ci loxoom moom itam ñu ngi koy soññ ak ñëpp ñu ne Congo wax dëgg waxtaan nañ ci ñoom ba wa bañ jëloon engagement koy ñu ngi leen soññ ci liggéey bi euh, buñ demee euh, Togo it ah, Dramé suñ moomu Dramé man ne Togo waxtaan nañ cee moom ca Lomé ba jëloon na engagement ci liggéey bi koy mooy itam ñu ngi ko ci soññi kon boole mbokk julli na ci àddina bi yëpp daal ñu ngi leen di soññ ci liggéey sëñ Tuubaa bi ñu gën ci cee góorgóorlu comme ni ko sëñ Assane Diop waxee jamono jone euh, sant bu baax waagaan fay tam nekk Nasriya moom ko am possible wax dëgg ci liggéey bi Baay Faal la boo xam si daal moom Sëñ Tuubaa rek moo ko ñor loo ko wax Sëñ Tuubaa maanaam lu mu yor dana ko jox ba lépp eh, di ca def kon waagaan fay ñu ngi koy sant bu baax ak mboolem waa ambassade bi mu nekkal foofu ak mboolem mbokki taalibe bi yëpp waaye eh, ñoo ngi ziare bu baax eh, waa Burkina Faso waa Wagadugu sëñ Mor Sall doon lañ ci waxtaan mu ne ma incha boo fi ñëwatee rek na mu indil carte barkeelu yi fas yéene na faa jot liggéey bu baax a baax xëy na sax ma nga waaye xëy na nam daan doxee. Euh, am na lu leen ci daal waaye wax dëgg yàlla waxtaan nañ ci bu baax a baax nee nañ ko fa indi carte yi euh, moom ci Ouagadougou mu doxal fa liggéey bi. Niger it am na ñu fa doon wax ne wax dëgg yàlla bëgg nañ liggéey ba agsi fi euh, waaye man yàlla dogal na jotagu ma fa woon a dem ndax amoon na yéen i demoon far yàlla dogal ma waroon dem Maroc ma far dem Maroc waaye waa Niger it ñu ngi sàkku liggéey bi ba Maroc it am na ñoo xam si wax dëgg yàlla xëy na ña nga ci naam waaye am na ñu gën a bëgg nañ daal yëf gën faa taxaw daal. loolu lépp nag yéen ñii ne fii euh, ci jumaa ji euh, doon jëwriñ ji yéen leen ci gën a mën a jàppale waaye ñun wax dëgg yàlla fu suñu tànk joti suñu kàddu joti fa incha allah fas yéen nañ faa yóbbu liggéey suñu tubaab bi kon na ngeen ñaanal ñu suñu borom sàmm ñu ba lépp luñ ci yéen rek sunu borom defal ñu lu ko raw waaw da jërë ngeen jëf bëgg nañ sax euh, bu soo yàlla mu yaatu ba ci diplomate yi ndax am na ambassadeur yoo xam si nii ne comme ku mel ne Côte d'Ivoire bari na ambassade yu fa ne ay réew musulman yi jaax sonawaa ñoom ñoo ay wëllëre lañ Euh, te it am na ku ku mu wutaloon ku xam si dégg na langue yu bëree bari pour mu gën maa mën a waxtaan la ñoom daal boo defee bu boobaa ñoom euh, xëy na kenn ci yéen sax bu ko jaree ñoom day mën a jël engagement ngeen ñëw fa leer leen yëpp boo leen ñu seet nañ ci jàppee waaw bu soobee yàlla incha allah. Euh, ci liggéey bi kon xam naa ne dañuy yemale foofu kàddu ñu jox sa iblaat bu sa rek mu àggal li ci des. aouzu billahi min alshaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, sëriñ ma fari ñi ngi yëkkati nuyoo ba gën a tedd di ko teg ci sa loxo nga jotleel ñu ko sëriñ Mame Balla Gueye ak bokki Mali yëpp gannaaw bu ñu nuyoo nag kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom nga àndal di sëriñ Abdoul Aziz Mbacké ak sëriñ euh, Youssou njaay Diri Ndiaye ak sëriñ Ndiaga Niang di leen di jaarale ci yéen nuyoo bi di mu jëm ci mboole mbokk yi nga xam ne ñoo nekkee ci diwaanu Mali yëpp di leen jottali itam nuyoo kilifay daayira bi tàmbalee ko ci sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne mooy njiitul daayira bi ak sëriñ Abdul Ahad Bousso mii nga xam ne moo topp ci moom di secrétaire général daayira bi ak sëriñ Abdul Ahad Bousso mii nga xam ne moo jiite euh, commission sociale ak relation extérieure ak sëriñ Abdul Ahad mii nga xam ne itam moo jiite lépp loo xam ne mooy culture jëm di xam-xam ci biir daayira bi ak mbooleem rek membre yi daayira bi nga xam ne ñoo ci yëngu ñëpp ci biir réew mi ak bitim réew di jottali nag sunuy nuyoo ci bokk yi nga xam ne ñoo nekk Mali yëpp waaye di ko jaarale nag ci sëriñ Mafari Ndiaye di leen jottaliwaale it nag nuyoo sëriñ Xasan Diop ni nga ko waxee léegi mi nga xam ne jàmbaar la lool ci daay bi rawatina li nga xam ne moo féete bitim réew di leen jottali nag ay cant bu baax ak ay ngërëm bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne amee ngeen ko ci liggéey bi nga xam ne dañ ko bokk muy liggéey bu Sëriñ Tuubaa te waxtu wu ne muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon waxtu wu ne yéen a ngi ci bay seenu waar di ci soññee di ci taxaw taxawaay bu rafet taxawaay bu am solo taxawoon ngeen ko ci màggal Tuubaa gi nga xam ne moom lañ weesu bi koor gi egsi itam ngeen taxawaat taxawaay bu rafet bii nga ne moom ngeen taxaw lépp nag ngeen xam ne Sëriñ Tuubaa ngeen koy defal te fii ngeen koy defee itam fu mu ko def lu woon la te mooy jumaa ji te ni ko sëriñ ma fari waxee léegi rek la mu ci waxoon waxu ko ci fenn ba tax na mag ñi nga xam ne fekke woon nañ ko de euh, xaroon nañ ci seen tànkub tubéy la jamo doon naq doon naqari naqari ak lam doon metti metti fexe nañ ba sëriñ Tuubaa amee ko ko bëggee sëñ bi nag am na lu mu ci diggee woon am na ci loo xam ne bis bi set ñu ngi koy jàng wax fir li man banaw binaa ahar rafia wax fir li man amarahum bihi jamia wali jamia man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika atala loola yaakaar naa du jeex mukk tabax bi moom am na ba waaye nag ab tabax boo amee ba noppi day am lu koy sàmm te mooy entretien te loola du jeex mukk te waxtu wu nekk yéen a gis njaboot Serigne Touba gi ku fi ñëw ku ne ab liggéeyam daf koy tàmbalee ci jumaa ji Cheikh Mouhamadul Moustapha liggéeyam ci jumaa ji la ko def lépp mën nañoo wax ne lépp ci jumaa ji la ko def ndax loo gis mu taxawal ko rek jumaa ji taxoon mu taxawal ko Cheikh Mouhamadul Fadil mën nañoo wax ne lépp ci jumaa ji la ko def Cheikh Abdoul Ahad naka noonu sëriñ Abdoul Khadir noonu sëriñ Saalihu noonu Cheikh Mouhamadul Amin lim fi yàggadi yàggadi noonu Cheikh Sidil Muxtaar gis ngeen taxawaay bi mu ci am muy bu am solo ba ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi yaakaar naa tey jii bi ngeen di ñëw rek fekk ngeen fi ñuy liggéey kon loolu lépp day wane ne bu ngeen gisee ñoom ñëpp seen ñu seen bépp ñu def ko ci jumaa ji xam la ci sëriñ Touba diggee woon te mu wóor leen ne diggab sëriñ Touba moom du sànk mukk waxtu wu nekk rek boo jaaree ci lam fam la jaarloo dajeeg lam la dig kon nag yéen itam ba ngeen xoolee ba xam ne lii liggéeyub Serigne Touba la bu jëm ci moom te doonoon digalam ngeen farloo ci nii ngeen ci farloo loolu des na leen ci sant bu baax waaye cant gi soññ gi moo ci ëpp solo ndax xam ngeen ko ba noppi. te itam sëñ Tuubaa mi tax mi ngi mu ngeen di def ak cantam rek mooy li am solo li nga waxoon léegi nag ci biir wax ji rek mooy ginnaaw dañoo ànd ñun ñëpp di sàkku ngërëmul sëriñ Tuubaa nañuy soññante rek soññ ngeen ñu waaye ñun nit ñu ngi leen di soññ bu baax a baax a baax a baax di sant nag bu baax ci sab taxawaay yow taxaw sëriñ ma fari taxawaayu ambassadeur nga taxawee ci liggéey bi ndax bari na foo xam ne ci Afrique liggéey bi àgg na fa te yàlla dogal na yow yaa ko fa àggale ci doxin wu rafet te loolu lu ama ama am solo la mooy jotli aw yiw waxtu wu nit jotlee aw yiw day mel ne képp ku ca jëf am nga ca tiyaabay jëf jëm ca jëf loolu nag lu am lu ama am solo la nga ànd ko nag ak sëriñ Abdul Aziz mii ni nga ko waxee léegi muy koo xam ne euh, moom itam loolu boo ko defee mooy def na la ko war te bu fekkente ne danga doon sëtub sëriñ Tuubaa nekk ci biti di liggéeyal sëriñ Touba waaye di soññi taalibe yi ci ñuy liggéeyal Serigne Touba loola def nga sa warugar waaye nag du tey des na la ci sant bu baax ndax nit ki ci jëf jum jëf warugaram ci lañ koy sante kon nag ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne loolu rek mooy li am solo euh, nit dal lu mu bokk te te bokk ca mu jege fa ak mu sori fa waxtu wu nekk xelam daf caa war di nekk waaye waxtu wu nekk itam daa war di jëf. ak di soññ ñuy jëf ci lu koy jëmee kanam ndokk nag ba ngeen ko xamee ba nga xam ne bu ngeen nekkee ci biir réew mi ak bu ngeen nekkee ci bitim réew seen tànk yëpp yéen a ngi ko teg ci luy dundal yoon wi ak luy yokk yoon wi ak luy jëmale liggéeyu sëriñ Touba bi kanam kon nag su ngeen demee sëriñ Ndiaga da ngeen ñu santal Serigne Mame Balla bu baax ñi ngi gis soññee yi nga xam ne mu ngi koy def waxtu wu ne gis nañ ñi muy dalal ci groupe bi gis nañ waxtaan yi ñu ciy def gis nañ soññee yi ñu ciy def gis nañ ñi mu ciy sonne du noppalu benn yoon waxtu wu nekk mi ngi taxaw ci lu jëmale liggéey bi kanam ngeen ànd ko nag ak moom yéen ñëpp waaye kon nag jërë ngeen jëf yàlla na leen Sëriñ Tuubaa fay te nangul leen ñi ngi santit ni ngu ko waxee léegi rek mboolem Afrique de l'Ouest gépp ni nga ko lime léegi xëy na du ko ni mën a lime waaye ni nga ko lime lépp ba Congo Brazzaville Gabon euh, Cameroun Côte d'Ivoire Mali Niger ak fu ma feneen fu mu mën a doon foo xam ne liggéey bi àgg na fa wala nga am yéene yi àggale ko fa ba ca Nigéria ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye itam di leen xamal ne soññ gi nga leen di soññi fii la bàyyi ko lépp luñ ci jëf itam day agsiwaat fii ci liggéeyub sëriñ Touba bi moom mi leen di soññi nag ak yéen ñi muy soññi ak ñun ñii mu jógee ci ñun di soññee ñoo ci bokk ab taxawaay képp yem ci képp ñun ñëpp ngërëmul Serigne Touba la ñuy wut. yaakaar nañ ko ci te gisuñu itam lu gën a gaaw ci ngërëmul Serigne Touba ci barab bii nga xam ne euh, sëriñ Touba moo ko santaane woon te dégg ci loo xam ne mësuñoo gisee mu mësuñoo gis mu dégg ko ci lenn kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññi ñëpp di ñaan ñëpp am jàmm tawat ji nga xam ne moo lëmbe àdduna te di ci tasaaroo fenn fu nekk euh, yàlla mi ko indi rek moo ko fi mën a jëlee. te yàlla nag ñun ñëpp xam nañ ne rus na Sëriñ Tuubaa kon nag fii ci kanamu Sëriñ Tuubaa ñu ngi ñaan tawat jooju mu teggi ko àdduna bépp ba taalibe yi gën a mën a dellu ci seenub liggéey gën a mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci nañ ko gën a bëggee te ñëpp am jàmm ci àdduna am jàmm ci àllaaxira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.